xam ba jamono ji nga xamanteni sénégalais yi ngi leen di xaar ngeen opposé wu nouveau régime dañuy gis ne que yéen ngi opposé wu ak seen bopp bërki démb sa benn aîné di sa camarade de parti ngeen bokk biscuiterie muy Arouna Coumba Ndoffène Diouf ex ministre conseil de Macky Sall dafa def benn sortie jëmale ko ci le président par rapport ak trahison bi nga xamanteni def na ko tey askanam donc dañ ko wara jël jële ji pour topé ko haute trahison ñu gis la nga indil benn réponse bo xamanteni tu as demandé quelle mousse a piqué Arouna Coumba Ndoffène parce xam nga Arouna il n'est pas d'accord avec ses paroles ou quoi Arona man dama ko yërëm à la fois damay dem sax bo di xol extérieurement mom il est normal sama grand la. mais mom lañu ñu investiroon ci municipal yi seen commune. mosum ànd ak moom parce que xamna né c'est pas un type à qui je peux faire. D'accord. parce que comportement ak sama comportement àndul parce que man bañkat laa. té man bugguma kuy humilier doomi adama, wala kuy torturer doomi adama xam nga politique daa demander de la décence bañ na ko ba biscuiterie bu mu dëkk dem na ba ñemeetu foon teg tànkam. pour quelle raison. quelle raison lim yaakaaroon waxoon na ko ne soo demee élection quatrième sax troisième deuxième sax doo ko jël troisième position nga jëm et puis loolu la am avec moyennant trois mille trois mille voix loolu mooy wane ne te. Amout militant yo yon nan biskouteri. Amout militant bon yon ete haone ki Arna Koumandoveli mwen seman responsable koumoun biskouteri. Koumel nan, prezident Makisal nomen la. Mwen opou mwen bas politi. Opou nyenen nye bas politi. Nou dem, andag mom, andag mom, andag mom, andag mom, mom meti bopan, eleksyon lokal, loutak magom, nye djoubouni. Mwen dem, mwen andag samay nit, nou dem mwenen manon, nan len djelal.

nenañ de gor soo àndeek sa moroom yi gor ngeen dem di lekk muy neex ngeen dem di lekk mu neex ba xiif jot na ngeen toog ànd ci xiif bi. mais kaddu yi wax su dee dans l' intérêt du Sénégal est-ce que c'était pas normal. ban kaddu la wax dans l' intérêt du Sénégal. tey par rapport à l'amnistie wax na ko alors que Macky moo jàpp ni accusé leen tëj leen Macky moo leen génne tey jugé wu ñu leen. mais président Macky il a tout à fait raison si tu es entré par des traîtres. Ah. par des lâches mais. Ah, mais non non xam nga xam nga Tange Tange Tange Tange. sénégalais xamuñ ku feyu ku togn rek lañ xam hmm. man sax dans des logiques thématiques le président Macky Sall dafa def sénégalais ku togn ku lañ xam waaw sénégalais xamuñ ku très bien euh, président Maxal, Sall man gëw sen allégation yi ñom nuru nako ko de. comme quoi que. non moo moo yombalal ñoom Diomaye accès au pouvoir. mais c'est visible. man gëmma loolu man. Ah. xam man luma gëm. moy hmm. luñ wax ci alcorane yalla moy joxe nguur. Hmm. yalla mo koy fokkarti mo koy su koy fokkarti du la ko du la sax tàggu. ak sabablu ak ndimbal. ndimbalu Macky Sall mi ngi ci li ndimbal du wessu <laughs> Omar Sow wax na. Omar Sow ay wax Omar Anne wax ho Omar si wax na. yow des personnes paranormales nga may wax. normal lañu. des personnes paranormales. waaw ba gisuñu Macky Sall mu gunge Amadou Ba. non mooy ñoom ci seen man te Macky Sall nga àndal. déglul xam nga man. est-ce que yéen voté wul leen man man Macky Sall 100 pour cent la Macky Sall su ma waxoon ne Tange yow laa jiital Cheikh ba Bamba xoolal du ma calculer ndax Tange ku baax la ni no sama yoon nekku ci loolu su ma nee Tange yow laa jiital. dama ànd ak yow 50 pour cent ne APR non man waxuma ne man pas. man du samay wax. man dal sais APR ay APR pas. Je non man pas. man woruma. man Amadou Bala. ne parce que ne lañ ma Je ne Amadou Je ne Amadou Ba ñaar sais pas. Je ko sais pas. dem jusqu'au fond dem sais pas. ba ci sais ñu Je may sais pas. Je ne Ba Ba mais man j'assume ma responsabilité responsable politique et le droit légitime d'accompagner un candidat qui a été choisi par mon président. mais pour moi, c'est pareil C'est pareil naa ca. Arona ko est na fen donc loolu Arona wax du gor. C'est de la traîtrise Arona lu mu wax c'est de la traîtrise muy wax président Macky lu président Macky Sall il n'est pas digne de le dire. Tu nga ko daal su dépassé Rubicon bi loo koy def. non su dépassé Rubicon. <laughs> ñun ñëpp discuter de ça ah. te xamante nañ ñett xamuñ waaye ñaar xam nañ te moom sama grand la am na lu ma koy rusee parce que am na ay rakam yu ma xam ruus ko rus leen am na ay paanaam am na rakkam boo xam ne sama collègue la woon nekkoon professeur SVT au même titre que man ñu doon partagé ay école ma rus ko ñoom ñoo koy bàyyi ay ay ay mbokkam lañ man rus naa ñu ndeg moom moom nag sooy ànd ak ay nit ñu am lu ñuy rus ci say parenté sa lien de parenté yow da nga am looy gàcceel pour wax mais su continuer lii man dinaa jamaroog moom. d'accord politiquement c'est tout lu muy laaj aussi dama koy def. d'accord moom tey quel poste occupe occupé Sénégal c'est bien est-ce que les gens se posent se posent la question d'où vient c'est bien. Non, a un ministre ministre conseil non le premier ministre conseil lu ma ci xam salaire nga am. xaw ma ndax 3 millions 2 millions 5 millions est-ce que je mayu

ci suñ dignité ñun ci valeur morale yi ñu inculqué ñun xamuñu ñu xamante d'embu, sax ay téranga dembu tey yalla situation changé malay saga ñun xamuñ loolu d'accord